bii ñu daje waaye ëtt bii ñu daje tey. day ñëpp. nee day sunu ëtt nag ñun ñëpp. waaye nag way jur wa dem. waaye nag way jur wa dem. daf ma daf ko caa cëraloon. ba ma xam ba mu xam ko. bi mu mujjee daje ak moom. nee bi mu mujjee daje ak moom nag. kër Mati Bala. kër Mati Balan daje. ci xew-xew ci xew-xew lu mel nii lu mel nii bi ma noppee bi mu noppee ni kon di jaay ni kon di bismillah mu ni ma foo nekk awma ma foo nekk rek yow xalifa man amatuma fa dogal lu ma yilif lu mu yilif teg naa ko ci sa naa ko ci sa loxo ba mu fa jógee ak nëgëni ba fa jógee ak nëgëni nag njabootam yu tedd yi njabootam yu tedd yii toog góor ñi ak jigéen muy góor ñi ak jigéen ñëpp dindi wuñ ko virgule dindi wuñ ci virgil baatu maako moom baatub maa moom nag neexul neexul yaako ko moom moom moo neex moo neex rawatina rawatinaat xam ni nga xam ni yaa ko moom yaa ko moom kee ma yor ci sama kër ne ka yor ca këram yaayam yaayam ak bàyyi kii di ak baayu kii di ngénte tey dindi jaay góor dindi jaay góor bokk seen ñoo bokk seen ndey ak seen baay bajjan Kodou Fall ma leen ma ko jur. bajjan Kodou Fall ma jur. moom maam Mati Fall. bi jur papaam. seen ma seen yaay yee teg seen yaay toppante. loolu alhamdulilah. loolu nag imaam ne. alhamdulilah sant yàlla rek la. lii sunu yëf la biir. ne lii sunu yëf la biir. sunu yëf la biti sunu yëf la biti. waaye dañ koy jox sëriñ bi. waaye nag dañuy jox lépp sëriñ bi. mu ñaanal ko mu ñaanal ko. li ci war a topp yëpp li ci war a topp lépp nag. bu ci noppee bu ci noppee. kaddu yi ñu ci war a teg kaddu yi ñu ci war a teg. dinañ ko ci teg dees na ko ci teg. incha allah rabbi. bala noo joxe tur wi. ku nekk nee na ñun ñëpp kenn ku ci nekk na muslu seytaane. ñu jàngal ko Fatiha. ñu jàngal ko Fatiha. bismillah. ne bu nu noppee ci noonu ñu def juróom-ñaari yaa baru. yaa barru barru nee na ñu tekki juróom-ñaari yaa raxiibu raxiibu ñu tekki juróom-ñaari yaa rasiidu tëjee ko sóoratul falax nee ko sóoratul ak sóoratul naasi. yàlla na ko yàlla nangu. nee ñaan gin fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu. sët na ko yàlla def jullit. nee sunu sët bi yàlla na ko yàlla def jullit. yàlla na ko yàlla def taalibe. yàlla na ci darajey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. barke Seexul Xadim. duppee nañ ko soxna Seynabu Ba. duppee nag xale bi soxna sëy na Seynabu baax moom lañ ko tuddee soxna na Seynabu Ba. mi ngi nii toog. doomu bàjjanam la. doomu bàjjanam la moom lañ ko tuddee. moom lañ ko duppee. tur wuyu borom. yàlla na tur wuyu borom. ni ko xalifa nee ni ko xalifa waxee rek. sunu teewaay. sëñ Cheikh nee sunu teewaay. ñaari anam nee ci ñaari anam rekk la. ba ñett sax. anam bu nee anam bu njëkk bi. wàllu Binta Ba. wàllu soxna Binta Ba. soxna Binta Ba. mi jur Aliou. yi mi toog. maag mook moom. doomu yëkkalanu. ak wëllu. bàyyi soxna bint bàyyi soxna Binta. mooy sama nijaay lenqeem. mooy nijaay lenqeem. soxna Njooro sama yaay. soxna Njooro yaayam. mooy bàjjenu soxna Binta. mooy bàjjenu soxna Binta. yaral ko boppam. yaral ko boppam. loolu cër nag cër rek la. soxna si bëggal soxna si nag bëggal nu boppam lool. nu maase woon. maase woon. ak doomam jun daan wax Ismaïla. ak doomam jun daan wax Ismaïla. ñu ganeendoo adduna. ñu ganeendoo adduna. màggandoo màggandoo. jàngandoo école. alquran bay yàlla dogal li mu dogal tey. ne saa su ko gisee rek moom sëñ Cheikh. ne daf ko naa gisuma sa jëm rek. waaye jëmmi Ismaïla rek laa gis. kon loolu cofeel rek la. mbëggeel la ak mbokk la. ne yeneen anam yi ci des nag. mooy baayu xale yi. ba tey day ndijaayam. muy ndijaay góor loolu itam cër la. nee na loolu ba tey cër la. ñetteelu cër bi nag ñetteelu cër bi nag. moo dàq lépp moo dàq lépp defe naa. muy wàllu pas-pas. muy wàllu pas-pas. akuk taalibe. akuk taalibe. ma teewal fi. mu teewal fi. mboolem yoonu murit. yoonu murit. teewal fi nag mbokku jullit yëpp. Aliou di mii toog di saafonteeg mbokki taalibeem yëpp. yi nekk ci Tiwaawan. nekk ci Tiwaawan. séq ak ñoom. séq ak ñoom. séq bu rafet bu rafet. dund ak ñoom. ñoom. dundin wu rafet wu rafet. dund goo xam ne. dund goo xam ne sii nag. ngor suñ seex ne ngor. ak njullit ak njullit. akuk taalibi ak pas-pas ak pas-pas. moo ko waral. looloo waral. loolu moo waral nag. mu sàkk woon ñu ubbee xasaayit. mu yii. ñu gàttandoo ko xale bi. muy nag lu am solo. muy nag lu am solo. gannaaw xale bi buñ ko wutalee tur. gannaaw xale bi nag buñ ko wutalee tur. rendil ko gàtt. gàtt. wutal ko tur. wutal ko tur. dafa am leneen lu ca des. nee dafa am leneen lu ca des. ndax moom bi muy dikk àdduna. ndax moom bi muy dikk àdduna. Zeynabu mii bi muy feeñ àdduna. Zeynabu mii bi muy feeñ àdduna. diine ju mat diine ju mat sëkk. lislaam bu mat sëkk. lislaam bu mat sëkk. moom la fi wàccaale. moom la fi wàccaale. waaye nag dafa am lu ca war a topp. waaye nag dafa am lu ca war a topp. mooy loola. mooy loola. ay waajuram ñoom ñaar ñii ñu toogee. ay waajuram ñoom ñaar ñii ñu toogee. nii ñu toogee. nii ñu toogee. ñu wéyal liggéey boobu. ñu wéyal liggéey boobu nag. yàlla ak yonent bi yàlla ak yonent bi nag. noppi nañ ci moom noppi nañu ci moom. li ci des nag li ci des nag. ñooy mottali liggéey ñoom way juróom ñoo koy mottali liggéey boobu. sang bi sallallahu alayhi wa wax ni. sang bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni. kullu mawludin yuladu ala alfitra hmm. fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassaraanihi aw yumajjasaanihi hmm. gan nee gan goo gis mu feeñ jamono. diine ju mat sëkk indi. ay waajuram ay waajuram nag. ñooy soppi dundinam. ñooy soppi dundinam. def ko yahud def ko yahud. wala yaasu billaahi nañ ci yàlla musal. yàlla nañ ci yàlla musal. wala ñu def ko nasaraan. wala ñu def ko nasaraan. yàlla nañ ci yàlla. nañ ci yàlla musal. wala ñu def ko majjoosi. wala ñu def ko majjoosi. yàlla nañ ci yàlla. nañ ci yàlla musal. dañoo war a wéyal. dañoo war a wéyal nag. diineem diineem. la ca njëkk la njëkk. mooy fas yéene ñoom nañ leen seen i wayjur woon ci lislaam mooy fas yéene ñoom ñaar ñii ni leen seen i wayjur tàggate woon ci lislaam ñu fas yéene soxna si. ñu fas yéene soxna si. yar ko ca yar yar ko ca yar bu rafet a rafet. nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni. bu ngeen amee njaboot bu ngeen amee njaboot. na ngeen leen yar ci na ngeen leen yar ci. ñetti jikko ñetti jikko. xubbi nabiyikum xubbi nabiyikum mooy soppi yonent bi mooy soppi yonent bi ak lu ca bokk ak lu ca topp wa ahli baytihi wa ahlu baytihi ak waa kër yonent ak waa kër yonent bi su ma nee waa kër yonent bi su nee nag waa kër yonent bi nag du ma ne surafaaw yu njëkk ya nee du wax xurafaaw yu njëkk ya surafaaw yu surafaaw yu njëkk ya waaye sunu maam yu baax waaye sunu maam yu baax yëpp nank tariixa. ŋànk tariixa. ci réew mi ci réew mi. ak fudul réew mi ak fudul réew mi. ñooña dañ cay bokk. ñooña dañ cay bokk. mooy ñaareelu jikko bi. mooy ñaareelu jikko bi. ñetteelu jikko bi ñetteelu jikko bi. mooy bëgg alxuraan. mooy bëgg alxuraan. Ah, comme gàttandoo ngeen ko xasaayit. nee comme gàttandoo nanu nag xale bi xasaayit. mooy gàttandoo ko alxuraan. mooy gàttandoo nan ko alxuraan rek. ndax diggante alxuraan. ndax diggante alxuraan. ak xasaayit ak xasaayit. mi ngi mel ni pepp. mi ngi mel ni pepp. akub soq soq maanaam pepp mi. nee pepp mi. dañ koy soq. dañ koy soq. buñ ko soqee buñ ko soqee. def ci sànqal def ci sànqal. def ci cere def ci cere. ak yeneen ya ca aju ak yeneen ya ca war a ànd yëpp. kon nag comme gàttoon ngeen ko xasaayit. comme gàttandoo noon ko xasaayit nag. nu ñaanal leen yàlla. nu ñaanal leen yàlla. yàlla na ngeen dund ba baas bi ni mu rafet. yàlla na ngeen dund ba baas bi ni mu rafete nii. ngeen woowaat nu nun ñii. ngeen woowaat nu nun ñii. ni xale bi tey wàcc na alquran. ni xale bi tey wàcc na alquran. loolu lañ loolu lañ leen di ñaanal. loolu lañ leen di ñaanal yàlla. baas bi rafet na lool baas bi rafet na lool. ñu ngi koy ngénte ñu ngi koy ngénte. waaye yàlla nañ dund. waaye yàlla nañ dund. bañ ni tey. bañ ni tey. xale bi wàcc na alquran xale bi wàcc na alquran. ngeen baasaat baas bi ngeen baasaat baas bi yëpp. woonu woowaat nu. ñu fekke ko ñu fekke ko. loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne. daal mooy kaddu yi nga xam ni. moom la ñu woon danañ ko ci tofal. moom la ñu woon dinañ ko ci tofal. leneen li ci des. leneen li ci des nag. sant nañu sunu mbokk yëpp yi. sant nañu sunu mbokk yi fi teew yëpp. su tuddee sëñ Saliou Ba mii. nee na bu tuddee sëñ Saliou Ba mii toog. jóge kër Demba Ba. jóge kër Demba Ba. tudd naa sama bopp. na boppam. su ma tuddee sëñ Xabaan mii. su bu tuddee sëñ Xabaan mii toog. tudd naa tudd na boppam. tudd naa waa jàmm gépp. tudd na waa dal jàmm gépp. bu ma tuddee sunu nijaay ji. bu nu tuddee sunu nijaay ji. sant Dieng. Mansour. tudd nañu su sunu nijaay yëpp. tudd nañu nijaay yëpp. tudd nañu sunu kilifa yëpp tudd nañu sunu kilifa yëpp. jigéen ñi. jigéen ñi. sunu jigéen ñi. sunu jigéen ñi. li ko dale ci Matiba. li ko dale ci Matiba. ak bokkam yëpp. ak bokkam yëpp. ñi mu bokkal bañ ñi mu bokkal bañ yëpp. sunu doom yëpp. sunu doom yëpp. sunu jarbaat sunu jarbaat yëpp. nuyu nañu ñëpp nuyu nañu ñëpp. gis nañu ñëpp gis nañu ñëpp. sant nañu ñëpp sant nañu ñëpp. notable yi dëkk ci quartier notable yi dëkk ci quartier bi. ñu fekk leen fi ñu fekk leen fi. muy waa jumaa ji muy waa. aaya jumaa ji. ak yéen ak ñun ñii fi bokk dëkk. julli ci yonante bi. nu julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Ah, di wax ni daal. di wax ni daal. ñun daanaka amuñu fi kàddu. ñun daanaka amuñu fi kàddu. ndax ñoo ngi ànd ak ki nga xamante ne mooy borom kër gi sañu rakk la. ne ñoo ngi ànd ak ki nga xam ne booy borom kër gi di seen rakk. mooy Ousseynou Diagne. mooy Ousseynou Diagne. moo yar xale yëpp. nee moo yor xale yëpp moo leen yar. suñuy doom lañu. ñëpp suñuy doom lañu ñu ngi nii toog. ñoo ngi nii toog ñoo ngi nii toog xale yëpp ngi toog. famille bi yëpp. kàddu gi. kaddu gi nag. suñ ko bàyyi woon ak xalifa kan. suñ ko bàyyi woon ak xalifa mii toog. xam na xam na lépp. xam na lépp te mën naa jotale lépp. ndax kër ga daraam du ndax kër ga daraam ëmp ko fa mooy léppi kër gi. Ousseynou mii moo yore kër ga. Ousseynou mii toog moo yore kër ga. ñun yàlla def ñu nattoo ñu nekk ci àll ba. nee yàlla daf noo nattoo rek ñu nekk ci àll ba. ñee ñoom tukki na ñu nekk ci réew mi. ñee tukki na nu ñoo ngi ca réew ma. waaye seen lépp moo ko yore. waaye seen lépp rek moo ko yore. ñoo ngi mais ñoo ngi koy sant nag di ko gërëm. njabootam gii mu nekk. moo xale yi njabootam gii nga xam ne ñoo nekk ci wetam dar ko. guddal seen fan. ne yal na yàlla guddal seen fan. te dolli ko leen sutura. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ne kumba mii ñoo ngi ne kumba mii ñoo ngi koy gërëm di ko sant. ko ñaanal yàlla sëy bi yàlla na ci yàlla. di ko ñaanal yàlla sey bi yàlla ci yàlla def barke. doom ji yàlla na ko yàlla dundal. doom ji yàlla na ko yàlla dundal. te def ko muy jullit. te def ko muy jullit akkan. comme ni ko sëriñ bi waxee. comme ni ko seriñ seex Ndiaye waxee. ah doom boo ko juree. doom nag boo ko juree. wutal ko tur rafet. wutal ko tur wu rafet. ah li ci des yar bu rafet. nee li ci des nag yar ko yar bu rafet. tamu yaru islam. tamu yarul islam. bu demee ba am fukki at ak juróom-ñett. bu demee ba am fukki at ak juróom-ñett. ngeen yóbbal tàggoo ngeen yóbbal. bu dee góor bu dee góor. bu dee jigéen bu dee jigéen. boo demee ba maye ko mu sëy. boo demee ba maye ko mu sëy. wàccoo ngeen wàccoo ngeen. ah bu ko defee nag bu ko defee nag. ñu góorgóorlu ci baax. ñu sëriñ bi waxee ñu góorgóorlu ci te dégg nag sëriñ Cheikh Ndiaye ndigal lim fi waxee ak ni mu ko waxee. yar doom yar doom yi yiw yar doom ci islam yar doom ci lislaam yiw yiw bu rëy nga ca wu rëy ma nga ci yar boobu yàlla nañ ko yàlla boole defal yàlla nañ ko yàlla boole defal lépp luñ fi ñaan lépp luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla nañ ko yàlla nangu ci barke yonent sallallahu alayhi wa sallam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam